tudd Cheikh njaay dëkk fii si Ngirane Nene mu bokk si Touba dendak ak euh, fii ñu nekk nii mi ngi nekk si tali bi nga xamante ne nii moo jëm corniche su Daara ak ndindi di corniche bi di deux yi dend ak Oryx bi tamit marché Kër Ñang bi nekk si suñu ginnaaw ñu fi dund loo xam ni quatre ans mi ngi nii ñu di ko dund mi ndox moo xamante ni ndox mi dëkku fi li tax dëkku fi lii képp koo ko gis xam ne du ndoxu taw mais ay kanaal lañ fi installé yoo xam ni kanaal yooyu moo fees di ball lu tollook fukki fan ak ñaar gisuñu fi kenn koo xamante nii bokk nga si maire yi wala bokk nga si nguur gi wala bokk nga si kër kilifa diine gu ñu gis te ñu nekk ay taalibe Serigne Touba nag. am droit dëkk bi bu ñu wootee ndaw ñi fi nekk ñëpp lépp lu ñu woote Serigne Touba kenn mënu leen si fii ñu nekk ni daayira bu mag mi ngi fi boo xamante ni Serigne rek lay liggéeyal di ay ndaw ñoo xam ni Serigne Touba la ñuy xëy Serigne Touba la ñuy gont ma jàpp ni xar sax boo koy yeewee sa kër bu lu mel ni amee da nga dem xooli xar ma si gétt ga nga koy yeew ba xam buum gi laxasu na wala laxasuwut mais rawatina ay taalibe Serigne Touba lii dund lii kon nag jaaxle moo tax ñu def lii ak bokk si di taalibe Serigne Touba daan naa dégg si sëriñ Alaaji Baara mu am kàddu gum daan wax lépp lu fi nekk taalibe yi ñoo ko fi def fii nag lépp lu fi nekk taalibe yi ñoo ko fi def tali sax bu daggee ñoo daan taxaw fi daaw di cotiser suñuy ñaar fukk suñuy téeméer suñuy ñeen fukk defar tali bi tey ñu ñoo am jaaxle gi gisuñu ma Samba gisuñu ma Demba gisuñu kenn li ñu bëgg nag ñu dimbali ñu ñëw saafaraal ñu ko su fekkoon ndox mi nga xamante ne nii rek moo nekk ñaari pono du am problème mais ndox mi day jugee Kër di ñëw ba fii ndox mi day jugee ndaamaatu di ñëw ba fii ay kanaal yu ñu xëttale verser ñu ko ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk fii nii si Ngiraaneen ndox mi di ñëw di yàq suñuy kër di daaneel suñuy kër suñu njaboot di si loru loolu nag lañ bëgg ñu saafaraal ñu ko ay ndaw lan mënoon nanoo def laneen mais ñu ko def ndax si dëkk bi leen dëkk du dund Serigne Touba du dund Cheikh Ibra kon danoo bëgg li ñu si bëgg mooy ñu saafaraal ñu ko baneen ba tamit li ñu si gën a métti mooy li ma wax léegi sama biir kàddu amul kenn ku ñu gis ku ñëw taxaw fii lii mat na fukki fan ak ñaar première taw bala ba taw bii nii. xam nga fa muy versé daa parewul mais daaw canal mi ngi fi woon mais am na benn solution bu ñu defaloon daaw mooy essayé woon essayé woon nañ ay machines yoo xamante ne ñu ngi doon manq pompe yooyu di manq kanaali di yóbbu su ko defee ñun ñi nga xamante nii ndox mi si suñu zone lañ nekk dan ñoo am ay pompe yu ñu joxoon suñu pompe di dugal si biir canal waa ONAS ñoo doon manq ñoom di yóbbu mais gisaguñu loolu ren. loolu lañ bëgg nag bu fekkee ñoom canal yi pareegul nañ ñu defaral beneen saafara boo xam ne la ñu doon defaral daaw mën nañ ñu ko defaral ndax état moom continuité la état moo fi nekkoon doon ko def am na beneen état bu fi nekk état boobu na ñëw jël ay matuwaayam xam ne Touba dafa bokk si senegal te Touba bu leen voté lu toon du ñu gagné nañu xam loolu loolu man gisaguñ ko maa ngi ciy dox ay jéego nag waxtaan naa seeg ay doomam mais ñoom waxaguñu ci dara ñaari doomam yoo xam ne ndax man xayra laa dëkkoon jóge fa ñëw fi ba démb ci guddi mais li ma lay mën a wax moom man déggaguma ko si koñ bi gisaguma ko si koñ bi te déggaguma kenn ku dëkk si koñ bi ne pompe yooyu ñëw na fii li am solo daal mooy état continuité la daan nañ ñu indil ay pompe di manque di yóbbu nañ ñu indil ay pompe manqal na ndox mi jëlal ñu ko fi danoo bokk si dëkk bi fii bi fi bi ñu fi tegee bureau de vote yi sept heures du matin la waa koñ bépp jug ba dix huit di voté kon loolu yaakaar naa kenn mun leen a génn Sénégal mais buñ nag nag ban voté leen ba pare ba lii am am ñu bëgg a seeni loxo nu ñu ñëw dimbali waa Ngiraaneen te xam ne Ngiraaneen dañoo bokk ci Touba dañoo bokk Sénégal lii leen soxla ay ndaw ñoo fi nekk nag nañ ñëw jàppale ñu difa defaral ñu lii ndax man nañ ko ndax état la te état amul lu mu tëlee waaw. waaw soxna Diaboulou waaw li yitte ji rek mooy boo xoolee tey jii yéen sama kanam laa koy njëkkee waaw kanamu yaay bu jaaxle waaw kanamu yaay bu jaaxle. ay kanamu baay yu jaaxle ay kanamu xale yu jaaxle te xamuñu fu ñu jëm ndax jaay bu jaaxlee baay jaaxle xale jaaxle nu ñuy def tumuranke day ñëw te lii tumuranke loon nañu te nag doonu benn at bi rek ñeenti at yoo xam ne ñun màggalewu suñu kër yi ganu màggal doo ko am te ñun ay murid lañ ay taalibe lañ màggal rek lañu fonk mooy suñu lépp ñuy ñaan nag di jàll di nuyu sëñ sëñ Mountakha suñu xalifa bi ku tedd ki di ko ñaan ndimbal mu dégguñu parce que ñun suñu kàddu fii rek la mun a yem kon nañu yaakaar leen ci yéen ngeen xam ne seen kàddu yi dem ba ca kaw mu dimbalanu ndax xam nañ ne am na yërmande ñàkku na xëy na yëg na waaye xëy na niñ ko koy waxee ak ni mu koy déggee da bokkee ni amee ndax fii ku xam ku sës ci moom rek waxuma la moom ku tedd ki ci boppam ku sës ci moom rek soo ñëwee fii xam nga ne xam nga ne ay jaboot sonn nañ waxuma ak moom ku réer mandel ak ñëpp xam nañ ko dégg nga waaye nag jàlle message moo jàllut ndax bu jàlloon ba mu gis lii dana ñëw dimbale yaayu jaaxle yi dimbale baayu jaaxle tout tànk yu jaaxale yi nga xam ne charrette lañ leen dugal gis ngeen ko sànq charrette lañ leen dugal dugal ci ay maire di leen jàllale xam nga lu doy waar la bu loolu passé ñu koy wax premier ministre waaw ci président sax la ñuy njëkkee ci président ndax maa xër mën ci premier ministre waaye ci lañ koy njëkkee ndax ñu koy njëkkee ci président mooy sunu jiit ak autorité yi fi nekk ci ci fii ndax am na ñu fi teg ñoomu ñu jàppale ñu nag jàllale message mu gën a jàll surtout nag premier ministre xam nga moom laa njëkkee mais damay waxaat surtout premier ministre ndax dafa dafa am lu mu ñëw taxaw fii bu ñëwul bii Touba ñëw mbaake ñëpp jàpp ci nag muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw mu joxe doom Touba nag ku ne xam na ne waxuñu de ku ne xam na ne waxuñu doonu ngistal doon dañoo jëf waaw te bu ñuy jëf nag boolewuñ ko wax comme nag dañoo jëf ba ñëpp xam ne Touba jëf na ah dañoo bëgg ñoo jàppale ñu na ñëw dimbale ñu nag premier ministre surtout premier ministre ndax ko am kàddu la waaw kon nag na ñëw jàppale ñu yaay yi jaaxle nañ baay yi jaaxle nañ tout tànk yi jaaxle nañ wasalaam. Dim Ndiaye laa tudd dëkk ci koñ bi waaye lii moom metti na ba fa metti yam ndaxte dafa mel ni dañu doon wutal saafara waaye saafara si jur jàngoro la. ndax ñoom dañ fi def ay canal ba pare canal yi amul accompagnement amul ñoo xamante ne suivi la ñu leen di wër di xool ba liggéey bi nan la demee wala déet ndax canal bi daa mujj yàgg euh, ndox yi nga xamante ne koñ yi nga xam ne ñoo ñu jege yëpp ndox bu fa nekk rek ci ndox ci koñ bi lay versé te loolu bu amoon ñu koy suivre danañ xam ni kon liggéey bi nii la war a demee parce que fii dafa def dafa def descente ñun nag ay taalibe lañ doon bëgg ñoo doon leneen nu deetu taalibe dañoo bàyyi suñuy dëkk gàddaaye suñuy dëkk gàddaaye li ñu am lépp ñëw fas ñu fas yéene nekk ay taalibe dëkk ak Serigne Touba kon nag loolu rek lañ bëgg bëgguñu leneen liñ bëgg nag mooy waaj màggal gi fas yéene dalal gan ñi te loolu mënuñ ko ci situation yu nii te gan ñi nga xamante ne dañ daan dal fii bu ñu ñëwee fii gis fii ni mel léegi dañuy jaaxle lool loolu nag ñun attunuñ ko ñu li ñuy wax nag point de presse bi jubluñ ci leen lu dul ñu dimbali ci jafe yi ñu nekkee mooy fexe ba ndox mi nañ daan def mooy ndox mi nga xam ne daa nekk fi ñu ko yóbbu ko te ndox mii nekk fi ñu ko ci canal su fekkee situation bi mën naa nekk ñu dimbaliñ ci waaye borom kër yi fi yëpp génn nañ ñu bari près de presque plus de deux cent maisons yoo xam ne ñu ngi yëpp génn nañ te ñi fi des akus néew dañoo jaaxle dañoo amul fu ñu jëm rek ñu ngi dugg ci ndox mi nekk fi paludisme fi mën na leen fa fekk leneen mën na leen fa fekk situation yeneen mën naa gën garaaw kon nag ku ñu dimbali rek lañ bëgg ñaxtuwuñ nag defuñ dara ndax ñun ay taalibi rek lañ liñ bëgg mooy ku ñu dimbali ba ba suñ message bi mun a jàll ci ñi xamante ne ñooy autorité yi saafara boo xamante ne war nañ ko cee mën a jël ñu jël ko ci loolu rek lañ bëgg waaw asalaamaaleykum man la Mahamadan Ndiaye dëkk fii ci Touba Ngiraneen tey nag li ñu dajale fii mooy sonn rek am aw naqar am ay jafe-jafe te xamuñu nu ñuy def ba tàqali kook jafe-jafe mooy ndox moo xamante ni ni at mu jot liñ ciy dund kenn ku nekk xam na ni wax dëgg yàlla metti na te kum doonoon yow it doo ko mën a muñ at mu jot lu mat ñaar téeméeri kër génn yanu seen i bagage dem seen yoon ngir ndoxum taw képp loolu wax dëgg yàlla kenn ko nekk xam nga ni jaaduwul jooyoon nañ ko fi nag ay jamono bañ ne woon dañ fiy def ay kanaal ñu tàmbali fee def ay kanaal canal yooyu nag moo ñu yóbbee sax musiba mii ñu dal tey parce que canal yi fi ne mi ngi refourlé di dugg ci kër yi ñun bu dee ndox mi taw fii ci euh, ci koñ bi képp mënuñoo indil benn problème ndax depuis 1994 ba léegi ñi ngi fi mosuñoo am jafe-jafe yii bi nu tabaxee corniche bu njëkk bii ci biir ci lañ commencé am problème tey nag kanaali yi bi ñu ko defaree problème bi ci gën a rëy mooy ndox mi léegi day jógee kër ñang di di dikk ci ñun tey kër ñag dañ daan am ndox boo fa demee doo fa gis ndox ndox mépp mi ngi versé ci koñ bi gisuñu kenn nag ko taxaw du autorité du sëriñ du kenn ko taxaw ngir bokk ak ñun naqar wi loolu nag jaaduwul lii nag ñu ngi ciy woo président bi président Diomaye fay ñu ngi ko ciy woo di ci woo premier ministre Ousmane Sonko ndax bi ñuy sonn ci ñoom lu mel nii moo taxawoon bëgguñu taxaw ci jafe-jafe askan bi loolu moo taxoon ñu doon sonn ci ñoom kon nag tey ñun ci askan wi lañ bokkut am nañ jafe-jafe dañoo bëgg ñu ñëw dañoo bëgg ñu yebal fi seen ndaw ñu ñëw tàqale ñoog jafe-jafe yii ñu am ñu nag Touba lañ dëkk canal yi dégg naa ñu ne dañ koo fat ay canal boo liggéeyee ba pare tëj ko léegi léegi fa féete kaw foofu la ndox mi jaare léegi bu ñëwee fi gën a fi fi nga xam ne moom moo ëpp profondeur ndox mi day refourler day génnaat canal yi ubbi wuñ ko ba pare wutal ko ay regard canal boo ko ubbiwul waroo ko wutal regard daaw biñ ci defagul regard sax ndox mi da doon versé ci koñ bi ren nag ñu far defar ko ay regard boo xoolee canal bi ci sama ginnaaw mi ngi rëfur la boo ko xoolee léegi gis ko lu ma deux cent personnes nag génn nañ seeni kër maanaam ñaar téeméeri kër ak lu topp génn nañ seeni kër te xamaguñ nag fu muy yem nag ndax ñaari taw mel nii bu ta buñ demee ba buñ demee ba wax ñun fuñ jëm te dañoo yor ay xale yor ak njaboot. nañu taxaw ci lii ñu dimbali lii mënut a wéy lii mënut a wéy lii mënut a béy bëgg nañu dimbali ñu nañ ñu ngir yàlla sonn nañ sonn nañ ba fa coono mën a yem fii nag Touba la mënuñoo mënuñoo manifester wu mënuñoo def dara lii la ñu man nañ ñu jàppale ndam nag bu feesee tuuru fii daal lañ mën a yem wasalaam.